Yeah, man, I maa ngi présenté maa ngi tudd Papa Abdoulaye Seck mais ñu ngi ma gën a xam ci biir euh, di ndaw dëkk Fatick màggee Fatick yaroo Fatick euh, di liggéey ci biir dëkk bi muy Fatick euh, ñun amuñ lu dul Fatick luñ gis ci beneen dëkk mu fay dox mu doon demande sociale ci dëkk bi dañ ciy xar suñu tubay di ci jóg di daanu di ut suñuy dërëm ak suñuy ñaar dërëm di ci def ba yàlla sotal ko muy lii nii tey mu doon nag euh, du lu loo xam ne dafa xëy xëy rek sotti parce que projet bi yàggoon na ñu ciy dox muy loo xam ne bi ci njëkk dañ koy def yërmande jëmale jumale ci suñuy jigéen ngir teggil leen lii di wàllu fóot parce que dafa metti moo tax ñu am initiative bi gis ko ci yeneen dëkk ñu ne pourquoi pas jëlee ko foofu andi ko Fatick ngir suñuy jigéen loolu bokk na ci li créé bés bi tey dajale ñu fi ñun ñëpp di ay ndaw parce que boo xoolee ñu fi dajee ñëpp ay ndaw lañ woowuñ ci benn mag parce que l'avenir appartient à la jeunesse ñuy woo suñu mbokku jeunes yëpp ñu épanouir ci loolu ñu jóg dox ci parce que ñun ndaw ñi rek ñoo mun a defar suñu dëkk bii di Fatick te bañ xaar quoi ñu bañ a toog di xaar loolu laa ci amoon lu ma ciy sànni côté boobu côté boobu nag ñu ngi ciy sant yàlla parce que gannaaw yàlla gannaaw yàlla ak sunu liggéey ak sunu ñaq amul kenn koo xam ne nekk na sunu ginnaaw wala sunu kanam yàlla rek moo ne sunu kanam moo nekk sunu ginnaaw ak sunu ñaq ak di góorgóorlu ba lu ñu am yéene ko sunu dëkk bi di Fatick andi ko fi loolu dong la ci côté Sénégal bi nag day dañ ko dañoo am yéene def ko benn chaîne mu doon entreprise boo xam ne focalisé wul boppam rek ci benn mbir ñu ngi ci dëkk bi di dox di xam li dëkk bi jànkonteel li nga xam ne mooy demande sociale dëkk bi yëpp soxla ko ku nekk di ko jéggaane di ko fekk feneen ñun ci loolu la ñuy xaar suñu tànk tubéy luñ ci def ren ñaan yàlla balaa déwén ñu def leneen Silistil ñoo ngi ko xamee woon ci habillement côté boobu lañ ñu xamee woon parce que ci lañ doore di sant population Fatick yëpp nag à l'unanimité muy góor di jigéen parce que tey feccum liir bu neexee rek nday jaay jàpp ci mbagg yi sans yéen duñ dara kon ñoo ngi leen ñuy tàllalaat suñuy loxo di leen gën a dénkaat suñu bopp ngeen ñaanal ñu parce que doomi dëkk bi leen yéene dëkk bi bëgg a tekk ci dëkk bi te li ñuy tekk ci dëkk bi jëliwuñ kenn fenn di ko ci boole c'est nous dans nous kon nañu gën a jàppalante gën a yërëmante te gën a bëggante waat sunu biir sini si loolu rek mooy idéologie bi maanaam lépp loo xam ne rek dëkk bi soxla na ko ñun danañ xar suñ tànk tubéy di ko ba andi ko ci dëkk bi benn côté day xaw a jafe pour nga wax ci parce que nit ku nekk euh, da am sa propre yoon bi nga war a tracé sa dund xëy na man yoon bi ma opté pour jaar ko ak bi keneen opté duma ko ŋàññi ci loolu parce que xaw ma lan moo ko ci xiir ak lan moo ko ci dugal man li ma nekk gëm ko ba may xale ba tey ci loolu laa nekk mooy que ni dama gëm ni mënuma am dara sama ñaq mënuma am dara sama diay samay nelaw ngir def ko jeunes yooyu nag képp ku ci nekk rek li nga nekk bu dee li gën ci yow la yal na la ci yàlla jàppale bu gënut ci yow yal yàlla soppi sa xel ba def li ci sa li gën ci yow nga nekk ci loolu daal laay ñaanal sama mbokku jeunes te ñu gën a xiirtal xiirwaat ci liggéey parce que amul secret amul secret de liggéey dong la amul secret waaw Sine Style pressing moo ngi nekk ci quartier bu ñuy wax euh, Escale en face bisis banque BICIS bi nekk ci berge bi numéro téléphone yi moo ngi nekk 77 816 23 51 maanaam lépp lu waay soxla ci wàllum fóot rek wala habillement wala tàkkal sa yére boo ko fi andee dinañ ko def ci anam bi gën te ci lu ci lu dul yàq que ci loolu lancé boobu lañ jóg pour def loo xam ne lu express lay doon yéene daal Fatick gannaaw ba ñu sante nag suñu waajur yëpp sant mbokk yi fi teew yëpp sant leen yéen ñi tam parce que suñuy wax bu demee rek yàlla ak yéen la bu ngeen fi nekkutoon ñun duñu dara lépp yéen la munuñ leen fay yéen munuñ leen fay parce que guddi na ku ci nekk am nga loo occupation yi waroon doxi yaa ngi ko bàyyi bu ñu xool dërëm bi la ñuy fay tax ñu bugg leen jàppee ay jaam defal ma ni def du loolu parce que mun nañ ne yéen a ñu gën ndax yéen a ñuy jàllale suñuy wax kon nag amuñ lu dul sant leen gërëm leen te di leen ñaanal ku ci nekk li nga bëgg sa xol ak fi nga bëgg àgg ci lii nga nekk yalla na la ko yàlla ak Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké mi ñu yaakaar defal la ko ci lu gaaw nga muurloo ko muy lu neex yéen ñëpp nag parce que suñuy morom ngeen yalla defal leen jàmm yéen it